yaayam mu ngi koy sotti mat ji mu ngi koy sotti Balla Gaye newoon naa la newoon yi ngay gis noonu si buntu kër gi saa bu mbër bi génnee rek bu koy xëppoo yéeg te daa mel ne mu ngi si kawam kon mel na ni Sa Thiès léegi tey mu dem. yaayam mu ngi jox Balla Gaye ay butéel mu koy sotti. Mhm, ndeysaan xam naa léegi ñu pare. ndeysaan waaw léegi ñu pare xam naa ne li si des moom pareetul eh, mel na ni li ñu doon xaar daal yegg si na tey. ndeysaan li si des ah, bi nañ euh, a ne fu mu toll wala nga taxaw si ginaaw di ànd ak mbër mi rek ñu ko war a ànd ñu war a topp mbër mi yëpp tey mën nañoo taxaw tey di ko xaar ndax Balla saa Thiès ngi nii di waaj a génn ndeysaan waaw gars yi ubbi nañ barrières yi xam naa ne daal ubbi nañ barrières yi ndeysaan su dëddu ba les bu may waaj a génn ndeysaan Balla Gaye mi ngi noonu ñu ngi koy ay saafara gis naa ko xam ne mi ngi yor guré yu xonk guré yu weex ñu yore ay kaamin ñi yor ay layu ñi yor ay pomme ñi yor ay boison ñi yor ay carax ndeysaan ñi yor ay ginaar ndeysaan saa kees mi ngi waaj a génn mi ngi waaj a génn ndeysaan ball mu ngi koy mu koy sotti ay saafara ndeysaan ball gee ngi noonu kii yor yoro satala bi moom mooy yaayu ball ya moom mooy yaayu ball moom mooy yaayu saa kees ndeysaan yaayu mi ngi noonu moom mooy yoro satala bi problème bi mooy lan yéen soo leen wàccu oto yi départ man dama leen di xaar il faut ngeen wàcc bu gars yi génn ngeen daw féete leen kanam jël waaw ndeysaan jëlal cuisson yi waaw waaw waaw jëlal jàpp ndeysaan mi ngi jàpp ci Balla Gaye ko jox ndeysaan tey combat waaw waaw ndeysaan ndeysaan làmb ndox bu ne da ko gis tey. boo gisee butéel yi ngay gis ni tey butéel bu nekk couleur am loolu làmb ko laaj ndeysaan làmb waay. Mhm. ndeysaan dafa ndox moom 4K bee mi ngi waaj a dem ndeysaan Balla Gaye ndeysaan. man de wàcc naa gure yi ay tettal la ndax dañ koy joxe fii. ndax dañ koy joxe fii wala dañ koy naa dañ koy sànni day sànn saa kees mu ngi sànni guré yi guré xonk yi guré yi weex loolu yëpp ay tetal la mu ngi koy sànni day sànn mu ngi koy sànni day sànn mu ngi sànni mu jël guré yi di ko sànni day sànn mu ngi jël guré yi di ko sànni guré yu weex la ak guré yu xonk yooyu yëpp ay tetal la mag ji mu ngi koy puusal muy Balla Gaye sànn dafa lu lekk waa Géejawaay indil na fi roi des arènes ndeysaan def na fi loo xam ne benn mbër dekk fi ndeysaan saa kees mi ngi nii di waaj a génn pour dem arène nationale ndeysaan yaayam moo toog noonu yaayam mi ngi noonu taxaw yor benn layu ba pare yor benn satala jaajëf ndeysaan fils de Double Less ndeysaan mu ngi koy jox ay butéel ndeysaan ndeysaan tey bii komba ndeysaan saa kees mu ngi waaj a dem ndeysaan saa kees mi ngi waaj a dem ñu ngi koy sotti ay saafara Balla Gaye yor mbuusu ndox yaayam yor benn satala ndeysaan ak benn layu ñi yor nañ kaaminu alxuraan waaw waaw dafa mel ni dafa am lu mu ci bëgg woon Sa pour mu xool ko ndax boo gisee waa ji mu ngi taxaw jàkkaarloog Sa Thiès nar a ubbi kaamil bi waaw waaw xam naa sax noon lay demee noonu lay deme ndeysaan Balla Gaye ngoog waaw dafa ndox kaamina alxuraan yi daf koy ubbi xool après soog a dem waaw waaw loolu yëpp ay tettal la xoolal ma lool rek waaw lu nga wax dëgg boo gisee li ma la doon wax ngi noonu Sa Thiès ubbi na kaamil bi waaw boo xoolee mi ngi téye kaamil bi da am lu siy jàngat ndax alxuraan mën na lu ne loo ne alxuraan mënu ko da xamul alxuraan dafa tënk lépp li ko gën a foor amul ndeysaan waaw waaw tey sama waa ji li wax dëgg la. liir na li ba pare. dëgg la. jàng na ko ba joxat ko kaamil. ndeysaan. waaw waaw toj nañ nen jox nañ ko jox nañ ko ay banaana. waaw waaw. waaw ah, waaye omelette yàq waaj a wëyoo nee na ko toj nañ ku ne yàq nga cuuj. de. Sadio du yàqu cuñ ay cuñ lay yàq tey waaw nga dëgg jox nañ ko xaal xaw ndax da kay toj boo xoolee mu ngi eh. ci loxo bi ñaari nen dëgg la xam naa buy mbër bi di génn moo koy tojal ndeysaan cooy làmb waay mhm. dama gis Balla Gaye yor xaal waaw Balla Gaye na benn xaal ndeysaan rakk jaa ngi waaj a jàkk jaa ngi waaj a génn dafa ndurax boy naar laa fi gis ndeysaan ma ngay jaxe mbiskit yi yaay ji mu ngi koy ñaanal balaa moo génn waaw mu ngi dëkk loxo ñaanal ko mu ngi dëkk loxo di xaar yaay ji ñaanal ko ndeysaan ñaanu waajur lu ne lay def si doom ñaanu waajur mën na lu ne bilaay walaay naa Balla yor benn nen ak xaal ndeysaan waaw waaw mu ngi koy ñaanal waaw ndeysaan cëy yàlla doom dafa sori si yaay yaay sori si doom ndeysaan ndeysaan kay ñaanal yaay ji mi ngi noon di ko ñaanal yaay ji mi ngi noon di ko ñaanal yaay ji mi ngi noonu di ko ñaanal ndeysaan waaye mu ngi koy ñaanal ndeysaan ndeysaan mu koy ñaanal waay waay waay lamb waay ndeysaan man li may gis nii tey dama ko gëj a gis sax ndeysaan lii daw na yaram lii daw na yaram saa kees ak yaayam lii daw na yaram saa kees ak yaayam lii daw na yaram saa kees ak lii daw na yaram diganta saa kees ak yaayam ndeysaan xoolal ma lii rek ndaa waaw dëgg waay waay waay lamb waay ndeysaan jox na ay nen Balla Gaye jox na ko ay nen toj na ko ndeysaan jël nañ bant boo xam ne ñu ngi koy wëral balaa moo dugg loolu moom day toj liggéey ndeysaan Balla Gaye moom yor na xaal waaw waaw genre bant boobu moom day toj liggéey ñu ngi ko koy defaat uh-huh. ñu ngi defaat ñu defaat balaa moo dem peut-être juróom-ñaari yoon nañ koy def wala juróomi yoon wala ñetti yoon maanaam daal li xew moom mooy day toll dëgg la wax dëgg yàlla. dëgg la boo xoolee mi ngi noonu di waaj a dem. Ah, Sa Thiès dugg mi ngi noonu di waaj a dem. Sa Thiès dugg na mi ngi noonu di waaj a dem. day ok merci d' accord. mi ngi noonu di waaj a dem. àndax ñoom Lac de Guiers ñoom Jackson ñoom Guiro Seras ndeysaan. yaayam ñaanal na ko avant moo dem tey bii combat ndeysaan ndeysaan ah mi ngi noonu di dem ndeysaan Balla Gaye ndeysaan Balla Gaye demul mu ngi fii taxaw peut-être nag fii ci kanam dina dem pour jox rakam ay conseil ndeysaan mais fu mu nekk nii demagul de Balla Gaye mi ngi nii taxaw peut-être fii ci kanam dina dem estat jox ay rakam conseil ndeysaan tey daay Balla Gaye ngi nii fils de Double Less lu mu war a wax rakam wax na ko ko nekk bul yàkkamti combat déclenché la day sànn ndam rek nañu soxla waaw bañ a yàkkamti loolu la ko doon conseil yaayam ñaanal na ko day sànn